guerre la mhm. sama wujj peccor gi dañoo xóot nopp eh? te xam nga fi mu toll nii sëye ngi soog a neex suukaru koor fi yéen a ngi toog déedéet toog de ñoo ngi ci kaw di football si <laughs> kaw waaw yéen am ngeen problème dama laaj rek de def waxi ne xool sarax la de doomu may damay waxtaan ak sama gan hmm. ngi àngal <laughs> moom kañ soppeeku bay dig daal yow bàyyil ma kii. sama nga ni lan nga def sama suukaru koor damaa leb 500000. te 500000 doyu ma de. waaw jasneer yow laa ko sas du andi nga ay jasneer. waaw sama goro bi laa bëgg a yóbbul 6 10 mètres jasneer. damaa bëgg jënd ñaari goro su suukar de góoma de ii. laay lay la laa. nga ba yóbbu ma sa tëgg bi xanaa bu ma ko avancé 200000 dinaa fa am ay waaw ay jaaru yu baax lay defar damaa bëgg a def lu kenn mës def. nga xam nga ne sama jëkkër. Euh, am na ñaari rak te ñoom ñëpp dañuy joxe. te sama mère bi kooba la bandi la. Mhm. damaa bëgg doon seet rek. moom koy doon nga seet ba pare li nga lim lépp ne moom ngay yóbbu. pare gu ma de ndaama dama cee bëgg boole daal ak saa ñaaf. yu bees. man ma xam loolu. gis naa gis naa jasneer yi. Mhm. ma daggal fu ne diis. sama goro bu góor diis sama goro bu jigéen diis sama njëkk 6 mètres. ñaaf yaa ngi dégg. daal ak saa ñaari façon mooy bu noir la. dégg naa la ak bu rouge ak bu rouge bi xam nga suukaru koor. weeru koor la sëy neex ndax jéeg fii la ñuy defantee. ci la ñuy wane seen bopp lii te door bu njëkk day dal. waaw xam nga sama doomu day bu baax sax. yooyu day dal laa. waa Pël waa nga baal ma day ba loolu yow loo si jublu noonu. xanaa defar sama sëy yóbbu sama suukar koor daal di laal li basan yi. Hmm. lem kaaka yi raxas ma lay dëpp. Hmm. mais loolu est-ce que yàlla wax na ko sa alxuraan ndax ndax constitution la si diine. waaw yow ñu mooy yàlla damay sëy sama sëy ndax sëy ci jaamu yàlla la bokk sëy ci jaamu yàlla la bokk. yow bu may bu may kii Eva continuer ko wax jasneer yi daal man ma daggal loolu day bokk ci làng gi kurusam gi nag kum pudóor nga dee de man de maa toogut ak moom làng man moom tooguma moom làng waaw déedéet man yépp la man kii tooguma ak moom làng bàyyi ko rek déglu ko nañ ko déglu waxal Iran Ndaw waaw maa ngi ngeen baal ma ak koor est-ce xam ngeen ni lii moo yëngal adduna bi instant bi nii ay suukaru koor di ba di tas ay sëyu jàmbur mais suukaru koor du sharia du farata du sunna yàlla bind ko si alxuraan mais la mooy suukaru koor sax dem di yóbbu ay suukaru ay suukaru koor ni kii naan ay ges neer mais li ngay jënd danga koy leb di ko yóbbu fële ay war a gor ak ay suukaru koor yàlla waxul loolu nit da ngay def loo mën ndayam tabaski si boppam sax yàlla dafa wax ni boo amul xar sax nanga rey sax bëy kon tegu la problème ana koor a joxe suukar di tas ay sëyu jàmbur mi jigéen yéen ba yigéen ba la ma seen problème yéen bu problème ngeen di kere ba pare yenn meeru seytaane yi dëmm yi ñoom naan waaw suukar koor nii sama bàjjen nii di na meer yi yenn meer yi nanu ragal yàlla nanu ragal yàlla ñu bàyyi seen doom yi ñu dugal si affaire u seytaane ñuy ragal yàlla maa ngi nag yaay wéy ñoom ma wax bu baax. yii bi tey wax na waxi nit. ah waaye ñun tamit ñun jigéen ñi jotul tamit ñu changé. jot jogul jotul tamit ñun jigéen ñi ak gore yi tamit jàppale jigéen ndagam moo toog fii tey duñu yar yooyu woon nañu xoolaat man ne bàyyi xam nga suukaru koor bu yeboo sax ñu xas ma waaye maa lebul di jox kenn suukaru koor waaye xas dafa takkul fenn sax nag waaye tamit xam nga il faut nit sagal boppam neexu ba neexu nag mais bokkul ci say de ba ñuy xutba si jàkka ji boole wuñ ko ci woon. da dëgg la wax waaye sama goro dafa doy waar de.